aousubillah bisimilah ina waliyallah aousubillah min asheytan irajim bisimillahi rahmanirahim wasalatu wasalaamu ala ashrafil mursalin saydina mouhamadin ibn abdillah mbokk téléspectateurs yu ñuy suivre ramatino mbégte fas yéene bokk ak yéen jotaay bile jotaay waam solo mën a mën a jàngate ci wàllu xam-xam ah, sequ kook jëmm ji di Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran sëriñ bi ñu fas ne jàkkaarlook yow ah, seq ak yow laaj ak tontu ci lu jëm ci wàllu xam-xam ak lu mën a dimbali doomu aadama ci wàllu nekkinam ak dundam laata ñuy xóosani nag ci laaj ak tontu yi ñu nuyu la bàyyi laa nga nuyoog téléspectateurs yi. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Mm-hmm. wa inniya u'iisuha bika wa suryatiha min asseytaani rajim. Mm-hmm. rabbi a'uudu bika min amasaati sayaatiin wa a'uudu bika rabbi an yaqduruun. Mm-hmm. laa xawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim. Muhammad mi ngi lay fay nuyoo di la dalal. di la ziar di am mbégte eh, ñu bokk émission bi. Mm-hmm. bokk njëriñ li ci génnee bokk ak mm-hmm. téléspectateur yi ñuy suivre fii ci mm-hmm. réew mi ak ci bitim réew di wax bisimilah jërëjëf di la gërëm itam ci nangul gi ñu nangul ñu seq ak yow jotaay waxtaane xam-xam nag euh, fi ñu koy tàmbali bokk na ci laaj bi ma bëgg laaj lool te ñu ci bëri ci ñi nga xam ni nit ñu ngi tukki biti réew euh, bëgg laaj laaj bi li tey nag ñoo leen koy laajal muy sëriñ bi ban secret moo gën a gaaw ci tur yàlla euh, ci génne xat-xat ci daar daar gi ci ko tukki ñu naan ko modu modu waaw Mamad laaj nga laaj bu am solo mhm. ndax jamono jii jafe-jafe yi bari na lool. Mhm. rawatina ci ñi nekkee ci bitim réew. Mhm. bitim réew nag buñ ko waxee. Mhm. fépp foo xam ne du biir réew mi rek bitim réew la. wàllu tukki nag yonent bi sallallahu alayhi wa da koo waajal. yàlla suñu borom subhanahu wa taala daf koo waajal ci sarihatu islamiya euh, muy ay bunt bu dee nit ki nga xam ne day jaamu yàlla. buy tukki lu bari ci li mu doon jaamoo yàlla suñu borom da koy wàññil bu nekkee ci tukki mhm. tukki mooy loo xam ni doomu aadama bu ci nekk rek war naa xam ni mu ci jëmee ndax tukki bu doon lu nit di xëy rek def ko nii suñ borom du ko ci teggil yenn yi mhm. du ko xamal itamit nan lañuy tukkee mhm. mu mel ni nag tur yàlla yi nga laaj ni ñoom yan moo leen mën a génne ci ay xat-xat buñ ci nekkee ci jamono biñ ci nekkee tur yàlla yi nag am na yoo xam ne xat-xat rek moo ko tax a jóg mhm. waaye way tukki bi war nañ koo xamal yan tur yàlla moo koy dooleel mhm. donte bu ko génnee ci xat-xat yi da koy indil ay opportunité mhm. yooyu moom dinaa leen ko baaxee li wajhillahi taala def ko rek ngir yàlla macha dafa am aaya alquran bu ñuy wax fa bu'ital la si kafara fa bu'ital la si kafara nag dafa àndaat ak yeneen ñaari aaya yooyu yi na ko Modou Modou yi bind ni ma leen ko waxee nii ñu ese xool douze jours wala onze jours laa leen may ñoom ñëpp délai. fa boo xamante la si kafara nag boo ko dee liggéey Mouhamed boo ko dee werd yaa ngi koy werd. quatre fois. fa boo xamante la kafara. quatre cent fois mooy lim bi. dafay ànd ak aaya bi ñuy wax wa yanqalibu ila ahlihi masruran boobu itam da nga koy werd quatre cent quatre vingt quatre fois nga koy werd ñaari ñu ngi noonu bi ci topp mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin boobu itam buñ koy werd ñoom dañ koy werd quatre cent quatre vingt quatre fois lan moo koy tëj ak lan moo koy tijji faatixatul kitaab lañ koy tijjee juróom-ñaari yoon faatixatul kitaab lañ koy tëjee juróom-ñaari yoon wan waxtu ak wan waxtu mhm. wax nañ ne waxtu wi nga jullee suba ba pare baax na waxtu wi nga jullee gee ba pare baax na mhm. lii daal moodu moodu bu ko ci saxoo mhm. sa njàmbat mën naa jeex tàkk ci sa digganteeg nit ñi ndax yàlla mi la sàkk di suñ borom dina la dimbalil boppam ci lum dul yebal kenn loolu mooy li nga xam ne dinaa la ko jox ci seen dimbal yi ñuy soxla tar tar te du jàllee woo kenn naan ko ñaanal ma ci lenn hmm. su boobaa yow mën ngaa defal sa bopp rek di nga gis résultat hmm. ak xat-xat bi nag lu mu a doon hmm. moo xam ñàkkub liggéey la moo xam wàllum kéet la moo xam jafe-jafe yaram la lu mu mën a doon daal boo ko ci yéenee nii ma la ko waxee nii moom lii aqi xala lu wér la loo xamante ni si ni topp nañ ko ba mu leer jàll ko waaye dama koo joxe rek ndax du secret sax buy génn di tasaaroo waaye laaj bee tax ma joxe ko ndax man dama bëgg rek lépp jaar yoon wa salaam. mu doon lu am solo yàgg nga kaa sax nag ci ak say jotaay eh, léeg-léeg di baaxee nit ñi ci turu yàlla yi ñu mën a jëfandikoo ngir seen ajo mën a faju li nga joxe nag eh, solo su ma am bokk na ci eh, di nga ci am ak njaamu yàlla gu nangu waaye ndax turu yàlla bi ngay jëfandikoo waaye itam sa aajo faju ci mu doon lu am solo laaj bi ci topp sëriñ bi bëgg nañu xam nag kilifa gi nga xamante ni ni alalam moom day wàññeeku rek ana lan moo ko mën a téye ngir mu am ak jàppandal waaw alal moom <laughs> li koy yokk mooy sarax mhm. buy wàññeekoot li koy indi mooy sarax mhm. yàlla suñ borom subhaanahu wa ni sàkk jaam yi mhm. seen alal ya lam koy ñoŋalee ci ñoom mooy leen wax ni bu ngeen amee juróom-ñeent jël leen fukk ba joxe ko ngir yoonu yàlla mooy zakkaat loolu farata la ahlu kitaab ñëpp xam nañ ko jërul dugg ci masala waaye boo ko leeralee ñëpp xam nañ ni sarax moom day yokk alal alal ji nag li koy yokk jamono buy wàññeekoo loolu ngay def mu yokkaat ko rek kon sarax mooy yokk alal ci jamono boo xam ni boroom alal ja ab jaamu yàlla bu alalam di wan ginnaaw di tasaaroo sarax yi nag am na yuñ ci taamu wax nañ ni sarax yi ci gën mooy dundal as gor ci lu mën a dundee donte ab surne la mooy ba ñuy lekk gannaaw ba bu dee amoo lu ñuy lekk nga jox ko xaalis mu jënd ci lekk ndax xaalis bi itam daanaka moo lekk gi rek ñooy am mën na ci jënd suwaa boppam euh, am na na yeneeni secret yoo xamante ni si nii sarax la lu mel ni saraxu giléem am na ci secret boo xam ni bu ko nit ñi xamee woon ni mu amee waxuma la am alal muy yokk waaye kenn koo xam ne saxoon na sarax boobu alalam dina dem ba jaaxal mhm. li moom maa la ko wax te lu wér la mhm. te boroom am am yi mhm. néew na koo xam ni xamul sarax bi may wax ndax bu duggantee kilifa yi rek nañ ko yebal ci sarax boobu ndax lu ko gën a gaaw ci yokk alal gisuñu ko fii ci réew mi macha allah euh, laaj beneen bi ci topp sëriñ bi bëgg nañu waxtaane nag lu jëm ci wàllu ko zikru la ñu bëri ñu naan zikru la anam ana nan ñu ko war a jëfandikoo lan lañu ñu war a zikr loolu lépp ñoom dañ koy dëxëñ ci benn laaj muy sëriñ bi zikru la moom ci boppam lan la mën a def ci doomu aadama. li ci gën a tuuti mooy raxas ab xol leeral ko ba mu leer nañ. Mhm, mhm. dañoo wax ni tuubal yàlla day teggi ay bakkaar waaye tudd yàlla dafay raxas ab xol. est-ce dafay defar ab xol. Mhm. tudd yàlla yàlla moo waxal boppam ni li gën a màgg ci àdduna mooy tudd yàlla mhm. wala zikrullahi akbaru mhm. tudd yàlla nag mhm. yonent bi nee na jullit bi koy def teraanga ji ko ci yàlla defal xajul ci àdduna moom ki nga xam ne dafa saloo tudd yàlla addunaam ak allaaxiraam lépp suñ borom daf koy defal euh, wax nañ sax ni yonent bi wax na ni doomu aadama bi nga xam ni dafa nekk ci njaqare wala dafa jékki-jékki rek toog di tudd yàlla mhm. bégloo na yàlla ci waxtu woowu mhm. maanaam ki toog di ñaan yàlla moo xam mhm. day zikkar wala day tuubal yàlla mbégte mi yàlla am ci moom su ko xamoon moom du jóg foofa day toog continuer di sikkar di tudd yàlla maanaam nit kiy tudd yàlla li ko tudd yàlla mën a defal daal li ci gën a néew mooy raxas ak xolam te xol nag secret la xam nga ni alquran li muy rëy rëy boo ko jàngee yemale ko sax xel mi amul njëriñ mhm. alquran ji nga xam ni moom mooy mooy dëgg dëggi alquran mhm. alquran jooju ci xolub doomu adama lay nekk mhm. xol nag leer nga koy fekk fa mu nekk ba mën koo raxas doom set loolu xam nga ni mbir la moo tax tudd yàlla li mu gën a man wala li gën a néew ci li mu man ci nit mooy raxas ab xolam te xolub doomu adama bu baaxee rek daraam mënatul ndax léppam baax na. macha allah ndax xol am na euh, lu am solo lu muy def ci nit euh, ci wàllu dundam ak nekkinam ak rawatina surtout ni ma war a jëflanteeg nit ñi sëriñ bi ñu laal tuuti nag ci wàllu actualité. Mm, yàlla def na ni ci at wile ñu ngi wax nawet nawet bu nu ko waxee wax taw taw mi nag xaw na jaaxal ñu ci bari ndax ndox mi wàcc bari na lool actualité bi bokk na ci njiit réew mi ba mu wàccee eh, doon masawu ñu lorulu ci eh, mbënn mi moom la mu kàddu yi mu yëkkati bokk na ci moom ab njiitu réew la mënta téye taw eh, ndox mi lan nga ñu ci mën a wax ak ni ko sénégalais di dundee jamono ji. waaw ndox mi ku dulub sax bu xoolee senegal yi ci biir ndox mi yërëm leen. Mm-hmm. ndax ñu ci am nattu mhm. am nattu nag bu wàccee ci am réew mhm. responsabilité yi jiite réew ma mhm. ñooy responsabilité mu nattu ba muy njiitu réew mi muy ñu yàlla teg ci kanamu nit ñi ñu jiite diine ji ñoom ñëpp mbir mi seeni responsabilité la loolu nag am na lenn lu ma ci remarqué mooy njiitu réew mi ak gouvernement ak bonne volonté yi ci réew mi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk jóg na mhm. donte yóbbuwoo dara sa ndox ma sax dem nga ba àgg mhm. masawu ña fa nekk xamal leen ni natt bi ñun ñoo ko mhm. bokk di ci jéemi pexe noonu ko gouvernement bi defee nag noonu laay soññee sëriñ si itam bu dara amatee ci réew mi du natt bu wàcc ci askan wi nañu jóg sol seeni dàll bañ faa yeble te dem fa te xam ni jaamu bi yàlla nit amul ci kaw suuf lu ko gën a tedd te ñu ci ay nattu ñu ci ay xat-xat Mhm. te ñoom ñooñu ñëpp mënoon nañoo bokk nekk natt yooyu ndax yàlla mënoon na koo def taw boo xam ne mhm. eh, dafay jëlee ñu bare bare bare. Mhm. njiitum réew mi nag euh, li mu wax. ni moom mënut a ab taw. Euh, digganteem ak suñu borom. li ci nekk raw na téye ab taw. ndox su baree dañ koy ñaan ndox su amul dañuy ñaan yàlla mu wàcc ko. waaye ndoxit suy lore dañuy ñaan yàlla mu arrêté ko. loolu nag xam naa. kilifa yi mu bokkal réew mi. Mm-hmm. ndax réew mi ay pàcc la. Mm-hmm. moom dafa jiite administration bi am ñu jiite yoonu yàlla. Mm-hmm. ñooñu dinañ ko ci jàppalee la ñu man ngir ndox mi wàññeeku ci réew mi. suuf si suufu si yàlla laa. te mhm. ci turu yàlla yi am na ci turu yoo xam ni. Mhm. bu ñu ko liggéeyee ni yàlla dañoo bëgg suuf si naan ndox mi. Mhm. ndox mi mën na fa bañ a def ñeenti fan mën na fay jóge ci kàttanu yàlla. macha allah ci noonu sax sëriñ bi la ñuy laaj des ci wàllu woowee ci réew mi ndax soxal na ñëpp naam réew mi am na njiit muy njiitu réew mi mais dañ daan gis euh, bu ñu tollaan jamono ci ay xat-xat euh, kilifa yu bari muy kilifa diine wala kilifa aada naam dañu génn ni réew mi soxla sa soxla na saraxu nàngam wala war nañ ko génneel saraxu nàngam xëy na kilifa yooyu gisatuñu leen yow sañ nañu laa laaj ci jamono ji ñu toll tey réew mi ban sarax la yittewu waaw réew mi am na sarax mhm. sarax bi tam njiitu réew mi moo ko war a génne jox ko askan wi mhm. junj naa ko fi ay yoon mhm. sama naataango bi ñuy wax baytaala tam fi ñëw ci kër bi ni ko nañ njiitu réew mi def sarax sàngam ngir réew mi waaye jamono ji nag réew mi laaj na sarax Euh, fii ñu nekk nag day réew moo xam ni. Mhm. loo wax tey suba keneen wax ko keneen suba wax ko ba mu dekk wax ju jaxasoo ju bari. Mhm. waaye senegal moom ci jamono ji laaj na ab sarax. Mhm. am na yenn kilifa yu diine yoo xam ne maa ngi déggante ñoom di leen xamal ni lii mooy saraxu réew mi nañ ko def. am na yenn kilifa yu aada yoo xam ne maa ngi déggante ñoom di leen xamal ni mooy saraxu réew mi nañ ko def. Euh, njiitu réew mi nag dégganteegu maa waaye am naa yaakaar ci ni dinaa déggante ak moom xamal ko saraxu réew mi mhm. ndax réew mi jamono bi am na sarax boo xam ni mhm. moom lañu war a def Mm. ndax natt yi bari na ci suñ kaw Seydina Mohamed mm. laataa ñu jàll ci loolu xam naa dégg ma ko may may rek li tubaab naan ñu def digression nga may ma ñu des tuuti ci wàllu sarax googu ndax sëñ bi euh, ku ci ku nekk nag euh, boo nekkee fajkat di médecin am nga lu ñu naan spécialisation maanaam fi nga xamante ni foofu nga gën a xarañ ñun ba ñu lay xam yaa ngi biti réew euh, lu ci ëpp da nga doon faj ci soxlaay doomu aadama yi waaye ci sarax nga koy jaaralee histoire taarix ci wàllu sarax ak yow ndax mën nga ci ñamal tuuti rek laataa ñuy xuus waaw sarax nag euh, dama koo xam. Hmm. am ci xam-xam. Hmm. Euh, diggante jaam bi ak boroomam. Hmm. bu soree amee rek jafe-jafe am. te yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni. inna sadaqa la tutfiu hadaba rabbi. sarax dafay jigéel jaam bi yàlla boroomam. nit ki nag bu dee da nga koy ñaanal yàlla. génneel ko sarax mooy xëcc nga ko ba ci suñ borom. da ngay wax muy dégg jàmm bi dégg yàlla di dégg borom sarax di dégg. moo tax sarax mënut a ñàkk ci ak ñaan. te sarax nag gannaaw turu yàlla. lim man ci kaw suuf. muy zikrullahi. gannaaw zikrullahi sarax a fi tane. loolu leer na <laughs> ñu wax ci leneen muy lu jëm ci ba léegi ci wàllu actualité gi sa bi safar bi teru na. màggal gi jàpp nañu ko lan moo war a doon taxawaayu kilifa yi ak taalibe yi. waaw kilifa gi nga xam ne moo jiite yoonu murit. Mhm. kàddoom mooy kàddu Serigne Touba ci taalibe yi. Mhm. mooy kàddu Serigne Touba ci ay jëwrinam. Mhm. comme nag moom joxe ndigal ci ñu màggal màggal bi. te itam nee na moom mooy référence su taalibe yëpp Serigne Touba na ñëpp xool ci moom ñu bëgg a jëriñu àdduna ak alaaxira moom nag li ñuy xool ci moom mooy day màggal mhm. te jox na ñun digal ñu màggal mhm. fukk bi nekk na nga màggal mhm. ku mën a ñëw Tuubaa na nga màggal si ndax moom loolu la joxe comme digal ñun nag sëriñ bi la ñu jàppee suñu sëriñ Tuubaa moom nag sëriñ Tuubaa moom la jàppee boppam moo tax màggal gi moom jërul kenn ci réew mi di ci am benn xel ñaar lépp lu ci waay foog du ci am jàmm rekk la ndax ndajem islaam la <laughs> ndajal la moo xamante ni si nii ki dajale ñëpp yàlla moo ko jox ndigal mu dajal leen <laughs> kon yàlla mi nga xam ne mooy borom feebar bi moom mooy mooy tinuwaate <laughs> dina tinu ñi nga xam ne dañoo wuy ji woote yàlla ci ndigalul suñu borom ginnaaw Touba ñu daal di barastiku tuuti dem Tivaouane gis nañu ne lancé nañu ay travaux fan yi lépp actualité la euh, muy jumaay Tivaouane gi Bambilor jumaa ju rëy ya fa nekk gën fay tabax am nañu écho ci ne dugal nga fa sab ñax ñun itam sëñ bi danoo bëgg a yokk ci wàllu woowu ndax mën nañu xam solowu wu dugal sag ñàkk ci jumaa waaw xam naa ne daal néegub yàlla. Hmm. foo ko fekk def ca la nga am. Hmm. Euh, jumaay Tiwaawan nag. Hmm. sëriñ bi woote na appel. yëgal ko ñëpp. ba wax ni ku amul loo ci def sax. na jël faatixa def ci biir jàngal ñu faatixa yónnee ñu ko. kooku nag wàccoo naa ñëpp. Sénégal nag dañoo tàmm ñaar. Hmm. bu ñu wootee ab liggéey yi ñëpp taxaw di seetaan. Hmm. bu ñuy immigré nag ñuy xat-xatloo ba place sax doo fa am yow mi ca defoon sam ñax. Hmm. suñu jumaat jii bi ko sëñ Sidi Muxtaar wootee fële ca Masaalikul Jinaan. journée irrigation bi mooy biñ koy immigré si naa ma ma xaw a naaje tuuti dem di julli ji. bi ma ñëwee police yi ni ma sëñ bi doo xaw a dugg ndax. affaire dafa fees. ma ne ko ah bu dee sëñ Tuubaa mooy sama sëriñ bi ci biir la julle ma loolu naa la wax ñu wax wax wax wax bañ may ma dugg bi ma duggee amul fu ma toog ma mhm. xool genn góor gu toog ak ñaari doom ma ne ko góor gi mhm. fii nga toog ni sama place la mhm. fii nga toog man mii maa mu ne ma ah waay sëñ bi noo ko mën a maye ma ne ko ndax jumaa ji du ñuy laaj di ko tabax dama doon yëkkati di ci def te man li ma fi def leer na ma ne jënd na lu ëpp ñetti karo te ci ñetti karo nga toog. léegi nag moom bu dee defoo ci dara rek jugal na ma toog ndax man sama place laa toog. Hmm. duñ liggéeyal yàlla luy dem. Hmm. mu war koo yeb yóbbu ko. Hmm. ñun ñu ci defoon suñu suñu alal. ñuy xoole ñoo xam ne dañ doon seetaan rek. ñu toog mu yóbbu leen man fu la jooju am naa ko man. moo tax comme jumaa ji daal li ma ci wooye nit ñi mooy. ku am sa alal def ci. du jumaay murit mhm. du jumaay tijaan mhm. du jumaay ñeseen mhm. du jumaay canaba canaba jumaay yàlla la macha allah lu ci waaye defit doo ko réccu ku am nag loo bëgg a yóbbu sa biir bàmmeel xamoo fu muy jaar ba dem boo ko defee ci jumaay Tiwaawan ji boo demee di nga ko fekk macha allah li ñu dese ci waxtu xam naa euh, bareetul noonu euh, Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran a Ibrahima Ndiaye alquran am na sama bukk alquran googi yi nga toftal sa tur lan la ak lan la ñu mën a jàpp ci euh, sëriñ bi diggante mag alxuraan ndax déjà bu nu ñëwee rek ci pàkk bi ñu ne euh, nga nekk fi di fi yëngu wala nga mu doon sa dëkkuwaay li ñuy njëkk a bokk na ci alxuraan yi la wër lan mooy euh, tey jii nii lan moo waral loolu. waaw sama diine ji ma gëm mooy islam. Mhm. li ci gën mooy alxuraan. Mhm. kon duma dem bàyyi ko. Mhm. bi ci jë jëpp mooy leer gi ëpp ci sama biir jëmm ji leeru alxuraan la <laughs> te ci sekkare yi may faj ci hmm. biir alxuraan lay juddoo hmm. rawxaan yi may àndal it leeru alxuraan lañ hmm. kon boo ma génnee ci alxuraan man damay jeex la Sëriñ Tuubaa waxoon Iblis nag ni ko yow de da ngaa réere sa borom rek moo tax nga wan ko ginnaaw waaye sa jëmmi bopp ji bu la yàlla laajoon lépp lim ci def doo dese dara te jëmmi yàlla boo ko laajoon lenn loo ko defal doo ko am mhm. loola nag ak réer lay doon mhm. alxuraan nag ñun yàlla dimbil nañu ba réeré wuñ ko mhm. lim ñu defal xam nañ ko lim ñuy jëriñ xam nañ ko te xam nañ li nekk ci ñun alxuraan la te mooy leeru yàlla macha allah moo tax man sama lépp ci alxuraan rek la nekk jëmul ci leneen macha lu dul alxuraan nag doo ko fi fekk doo ko fi dégg. wallaay ndeysaan jërëjëf mu mel ni kon uh, waxtu wi ñu cëre la woon uh, mat na sëkk uh, waxtaan bi am na solo ba doyaluñu bu ñu sañoon xuusandeeg yow ndax lépp njariñu askan wi la ak ñi ñuy seetaan sëriñ bi ban kàddu gu mujj ngay dénkaat réew mi. ñi nga xamante ni sopp nañu la di la seetaan ñiy jariñoo ci sa kàddu ak ci li ngay joxe ci ak ngëneel ci wàllu kàddu ak surtout tur yàlla ngir ñu mën a yëkkati jotaay bi. waaw euh, mbokki taalibe yi nga xam ni maa ngi jëflanteek ñoom mhm. euh, ci biir réew mi ak bitim réew mi mhm. ak ñi nga xam ni ñu ngi may déglu tey topp jataay yi mhm. euh, dama leen di xamal rek ni àdduna fi mu toll laaj na ak dal dal nag ci sa jëmm waaye dal ci li sa kanam ta ngay jànkonteek moom bis bu nekk nga xëy di ko gis te li ñuy dégg lépp ñu bañ a def rek luñ dégg ni gonga mhm. lu ci waaye déggati lu mën a doon mhm. moo xam ci média bi moo xam ci gouvernement bi moo xam ci diine ji mhm. na nga settantal ndax suñu borom moo la ko digal adduna bi dafa jaxasoo liy dégg ak lu dul dëgg dañ koo jaxase ku amul ak settantal rek mën ngaa réer kon ñoom it maa ngi leen di soññ ñu bañ a bàyyi seen bopp noonu rek lu ñu leen jox ñu ni noonu la ñuy suivre te xam ni adduna bi moo laaj loolu. lépp lu ñuy dugg ñu ko setantal. jërëjëf mbokk yi mu nekkoon seen jotaay waxtaan wa am solo ñu doon seq ak jëmm ji di Cheikh ma Ndiaye Al Quran képp nag ki ko yittewoo gis ngeen ne ay numéro dinañ ko affiché ci suufu écran bi bëri waa na ay njëriñ fi joxe eh, waaye nag xóotal ji incha allah yéen ak moom lay doon ngir képp ko am yitte ci moom jëm ci jafe-jafe àddunaam ak surtout li nga xam te ni yokku téléphone moom ngir mu bën ngir mu mën a ñoŋ ñu am mbég mbégte lool doon seetaan euh, wala seeq ak moom jotaay bi lee jox leen xëy na incha allah du mën a ñàkk yeneen jotaay ak moom euh, ngir yeneen i xam-xam ak euh, yeneen waxtaan yu nu mën a jariñ jariñu ñun ñi lu njëkk waaye tam la ca topp askan wi yëpp ak surtout ñi koy topp di ko seetaan te di ko bégee lool wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.